asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxala wa barakaatu mbokki Sénégal yi biir réew ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant. l'œil de la commune di am mbégte bu baax di sant yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ci xew-xew yi nga xam ne am na ci réew mi ci jamono ji te it ci ku xam suñ borom may la tuuti basira nga xam donte metti na ci jamono ji mais alhamdulilahi la ñuy wax. li tax ñu koy wax mooy lii mooy yoon wi nga xam ne ku yàlla bind mënoo fexe ba yoon wi du yegg waaye nag mbokk yi dañoo toll ci jamono joo xam ne dafa am fu mbir mi toll mbir moo xam ne dafa am lu ñu war a def taxaw temm def ko muy ak ñaan gu am solo di ñaan gu ama ama am solo ci réew mi ak fii réew mi toll ngay ndaw ngay mag ngay xale ngay tut ta ñëpp bawuñu kenn at yi laa am duma ko def wala nangam laa am duma ko def déedéet bu la ci fekk ndax bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla te lii ñuy def dafa bokk ci li nga xam ne keno yi doxal réew mi ci la bokk mooy baat bii ma leen di jox guddul ñëpp mën nañ koo def te na ko senegal gi yëpp partagé ñu def ko mooy bu xasbunallahu wa nixmal wakkiilu xasbunallahu wa nixmal wakkiilu da koy def 77 fois xasbunallahu wa nihmal wakiilu mën nañ koy def suba ak ngoon maa ngi ciy woo boroom kurus yépp di wax ñu def ko ñaan ci réew mi ba noppi mbir la moo xam ne bis bu ñu ko defee di ngeen xam liy njariñ li ak liy solo si ak fi yëf yi tàmbalee ak fi mu jëm lii nag maa ngi koy jox suñu mbokk yi nga xam ne nee nañ ay soldaar lañ nee nañ dañuy dem guerre yi di ko may tamit ndaw ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi nga xam ne saa su ne dëkk bi yëngu na muy kaaraange goo xam ne képp ku ko def suñ borom dina la musal bu ñu geeree def ko muy seen arme mooy lan ay baat la yoo xam ne boo ko defee suñ boroom incha allahu rabbi dana la musal ci wàllum lépp luy fitte bu nee luy fitte nag moo xam muy balu fetal moo xam luy li nga xam ne day jóge ci nit bëgg laa lor jàpp leen ko bu baax muy baat yu am solo nag surtout mbokk yi lii dafa bokk ci combat bi mooy fitkum fatakum dallakum kuf fetal boo jàkkaarloog borom armu nga def ko suñ borom dana la ko tëqal danga naan fitkum fatakum dallakum kuf fetal déglu leen ma bu baax mbokk yi yomb na da koy def yitte da nga koy man léegi fitkum fatakum dallakum kuf fetal mbokk mi lii kaaraange la goo xam ne képp ku ko def raayoo ko sa jë génn sa kër fépp foo dem ci àdduna di nga ñëwaat moo xam militaire yu dem guerre buñ ko defee dana dellu siwaat seen réew ci kattanuk suñu borom muy mbir yoo xam ne du ay xam-xami caaxaan wala xam-xami fo dañ ne woon duñ ko mës a génn ci suñu àdduna mais nag jamono moo toll foo xam ne fokk ñu teg ko ci taabal ji beneen bi ci topp mooy am nañ mbégte ci lépp di leen sant bu baax di leen gërëm ndax vidéo bii li tax ñu génn def ko ci mamaa bi fii la safee te Sénégal yépp nañu def dog yi ba noppi kaaraange gi ñu jël ko di ko muslaayoo te xam ne képp koo xam ne Sénégal gi moo la ñor wala réew mi ñor la kenn ku ci nekk ak yoon wi ngay jaar ba tabax sa réew te ndaw ñi ñi ngi woo ñëpp di soññu ñëpp fi jamono ji toll vigilant xam fi ñuy jëm xam li ngeen bëgg nit nag mënoo am dara te coona gàllooboo ak moom suñu mag ñu baax ñi fi jaar gis ngeen li ñu daj ñun duñ ne dañuy wut àdduna daat ne dañ koy am ci noflaay allaaxira it kenn du ko am ci noflaay dara yombul suñu kilifa diine yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi sénégalais yi ñun ñoo bokk àdduna bi bu nit mer ba wax loo xam ne ëllëg da nga koy réccu bu leen nangu ñu jël leen di leen dóor ci kilifay diine yi bu leen ko nangu bu leen ko nangu àdduna kenn ku ci nekk boo xamee li la war te defoo ko boo deewee di nga ko digaaleeg suñu boroom bu ñu nangu nag ñuy ñuy divertir ak di ñu gëmloo suñu bopp yi loo xam ne dara du ci dëgg wala ñu leen di xoqatal wala ñu leen di teg naka su dul noonu àdduna bi léegi paase na ay naxaate ak yi kàcc ak i fen nañ leen gëm suñu bopp xam fi ñu jëm te xam ne président Ousmane Sonko képp ku ànd ak moom waroo yox yoxi waroo tiit. waaye man maay wax ak yéen mission bi fii mu jëm wa rabbul kahbatu musarraf yëf yaa ngi doog a tàmbali te alhamdulilah la wax ci ko xam dana mel ni nag lu metti waaye lii mënul woon a ñàkk danaa ñëwaat ci beneen anam na Sénégal yëpp partagé vidéo bi jàmm rek laa leen di ñaanal te yàlla na ñëpp am jàmm barkeb Serigne Saliou fi amaanillah shukran